histoire extraordinaire di am deux fois ci semaine bi tous les lundis et tous les jeudis voilà bienvenue mesdames mademoiselles et messieurs salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi amaan mbégte contentement di kàtt ak yéen ci seen bile émission di wuyu ci turu histoire extraordinaire bile émission ngeen taamu ko saful ko seen bopp émission bi di dox waaye itam di wax ak a jëf ci histoire yu doy waar mbokk mi laajaa ñuy tàmbali ma posé la question rek laaj la ana lan mooy sa xalaat ci école bi nga xamante ni nar nañ ko ubbi le 2 juin te li nga xamante ni moo di mbas mii di coronavirus bi jógagul ci askanu sunu gaal kon lan moo ci sa xalaat top à vos ci école yi ñu war a ubbi le 2 mbas mi ci askanu sunu gaal voilà mbokk yi ñu ngi nekkoon ci histoire extraordinaire u Adama ak Awa àndan na ak yéen ba ci li nga xamante ni moom mooy huitième euh, partie bi kon nag mbokk yi ñu dox wax jëm ci li nga xamante ni moom di neuvième partie histoire extraordinaire Adama ak Awa voilà mbokk yi di ko nañ ba fi nga xamante ni foofee la Adama doon jaaye waajoo ji nga xamante ni moom moo taxawoon ci buntu këram ni ko dama bëgg nga ñëw ñu ànd dem resto ñu toog waxtaan Adama ni ko man li nga xamante ni moom laa yor nii nga gis may jaay muy ndox mi ak li nga xamante moo di jus bi ma yor di jaay ci laay añ ci la sama yaay di añ kon na grand suis désolé mais loolu nga bëgg duma ko man ba waa ji daal di jëndoon lépp li nga xamante ni moom la Adama yor ngir ànd ak moom Adama dugg ci biir kër gi jox yaayam li nga xamante ni moom moo di añ beeg yu ni mel ba pare daal di koy xamal ni ko nag bu añ jotee añ leen te xam ni man maa ngi ñëw duma fi añee ci naka noonu Adama ànd na ak ki nga xamante ni moom mooy waajoo ji waaxoo dem ba ci li nga xam ni moo di ci restaurant bi Adama ak waa ji ba ñu àggee ci restaurant bi demee bi ña nga toog di waxtaan waa ji daan ni ko waaw xale bu jigéen bi man leen rek moom laa la bëgg a laaj leen rek laa lay doy leen rek moo ma jaaxal ci yow muy gis gi nga xamante ne gis naa la ko ngay dàqe sàcc bi ak vitesse yi nga xamante ni doon nga ko dàqe waaw xale bu jigéen bi waaw xale bu jigéen bi ana nan nga tudd sax Adama ni ko Adama laa tudd mu ni ko Adama da nga moo di daw daw maanaam athlétisme Adama ni ko déedéet mu ni ko Adama seetlu nga vitesse yi nga xamante ni moom nga ma rombee bi ngay dàq xal sàcc bi Adama ni ko nit soo toltalaanoo lijjanti ba am li nga xamante ni loolee nga war a dundee nit ñëw jël ko bëgg koo dundee fàttala yaag ñi ci war a na dund yépp doo def lenn lu dul daw sa xilu ba kenn ngir jotaat ci loolu yi loolu de moo tax ma doon daw yooyu la daw waaye est-ce que mënati naa ko daw sax waa ji ci jëmmi boppam ni Adama kon yow xale bu jigéen bi mosoo def athlétisme Adama ni ko déedéet mosumaa daw waa ji ni ko waaw yow ndaanaan nga de. est-ce que mën nga ñëw intégré ci li nga xamante ni moo di suñ club bi suñ équipe bi nga xamante ni ay athlètes kese ñoo fa nekk di daw. Adama ni ko déedéet loolu moom duma koy mën. waaj ni ko Adama ana lan moo tax wuroo mën a ñëw dugg ci suñu équipe bi Adama daal di koy tegal li nga xamante ne moom mooy li mu bëgg jafe-jafe yi xamal ko ni ko man seex laa am naa sama beneen moroomu seex waaye suñu papa dafa gaañu suñu papa nag bi muy gaañu bàyyi na ak alal bari waaye jooju la alal mënuñu cee teg suñu loxo ndax suñu rakku papa moom moo ko tee téye ko téye moom ku baax la waaye jabar ji ci jëmi boppam moo bon bon goo xamante ni nanguwul benn yoon mu jigéen ñëw bëgg gi mu bëgg jabaram tax ba jabaram la ma ko tere lépp mu daal di koy def ànd ci ak moom ma des ak sama yaay ak sama seex sama seex bi nag la yàlla xam doy na ndax moom ci jëmi boppam beneen yoon la jël bu dul bu baax tey sama yaay ci jëmmi boppam am na loo xamante ni daf koo soxla muy lan gi giñ ko war a opéré di ay xaalis di ay koppeer yu takkoo takkoo takku loolu yi tax nag may dugg ci àll bi di dugg ci kër yi fu ne ma nekk fa di toltolaan di liggéey ngir am li nga xamante ni moom la ñu mën a opéré sama yaay joojilee kon nag sam grand kon nag grand loolu nga may woo duma ci masa wuyu duma ci mën a masa wuyu mukk mukk mukk mukk ndax sama yaay laa tal ak lu mu dundee grand bi daal ni ko waaw Adama waa léegi puisque nangu woo intégré ci groupe bi puisque bëggoo bokk ci équipe bi dañuy def éliminatoire waaw ay compétition yoo xamante ni buñ ko defee képp ku jël pay rek yaay représenté li nga xamante ni moom mooy suñu réew ci coupe d'Afrique bi est-ce que kon mënoo ñëw tenter ce sens rek daal di def loolu def compétition boobu te itam maa ngi lay fësal ak di la xamal ni boo ko defee compétition bi boo jëlee pay maanaam nga raw war représenter li nga xamante ni moo di suñu dëkk. sa yaay ji dinaa la ko fajal ba mu wér waaye itam di nga am salaire boo xamante ni di nga mën a jël en charge lépp loo xamante ni lu sa yaay soxla la lépp loo xamante ni itam lu sa seex boobu yi la soxla kon nag Adama tey ngaa ñëw Adama ne ko waaw génial am na solo lool lool lool mais nag da nga may may tuuti rek ma daal di delluwaat ci li nga xamante ni moo di sunu kër su ma demee dinaa ci waxtaan ak sama yaay waxtaan ci ak ñëpp ñi nga xamante ni war naa ci waxtaan ak ñoom ci naka noonu aadama gëmeew ko di daw di daw di daw di daw di daw ngir àgg wax ko ki nga xamante ni moo di yaayam ci yoon wi nag mu daal di gis ki nga xam ni moo di xam bi di awa toog ci benn ban jaaxle di jooy jooy yi metti lool aadama daal di ñëw ni ko waaw awa ana lan ngay jooy lan la lan moo xew mu ni ko démb damaa delluwaatoon ci sa waaj yi waaye ba tey nanguwul yëkkati benn dërëm jox ma ko ci ginnaaw bi may ñibbisi ci la ma ay xale yu góor kar ay xale yu ndaw xale yoo xamante ne amuñu sax douze ans xale yooyu kar ma jël ay paaka tiimale ma ni ma force nga dugg ruq man leen waa lan mooy dugg ruq adama ni ko maanaam awa awa ni ko xale yi daal loolu lañ ma wax force nga dugg ruq daal di jël ay paaka tiimale ma ñii yor ay yat ñi yor ay xiir ñi yor ay fett yu ñu defaree ay find feex ci naka noonu xale yi ci leen ma yóbboo ci benn tabax bu yàgg ñoom ñëpp daanaka lu mat fukki xale tiim ma ñoom ñëpp képp ku jëf ba pare jox sa morom bu jëf ba pare jàpp ma dóor ma ay xiir ba sama yaram baa ngi yëpp ngi metti ni ma demal ñibbi adama li may dund metti na trop adama li nga xamante ne ci laa nekk metti na trop adama man awa yow yaay sama seex teg maa dimbali adama ni ko awa yoon bi nga jël baaxul ku la ko digal dalay nax beneen yoon bi ci des moo gën ndax loo taseel da nga koy mën yoon bu bon mosoo gis ku ci dem di ci diggu di ci nekk di ci jëf di ci dox ba am ci lu baax musul am musul dégg tamit itam ku ne da doon def lu baax ba lu bon fekk ko ca boo nekkee ci lu bon nag mbir mi mën naa neex ba nga jàpp ni dootul yi nga nekk ci lu baax mbir mi metti lool ba nga jàpp ni dootul neex benn yoon ba tax na kon jugal ñu dem kër ga jógal ñu dem kër ga ci naka noonu Adama ànd naag Awa mii di ab seexam yëkkati ko lëng ko yóbbu ko ci li nga xam ni moo di seen kër ba nu àggee fekk fa seen yaay seen yaay ni waaw lan moo xew awa lu xew Adama daan ne ko awa daal dafa def benn accident rek am ay xale yum doon xeexal waaye du dara ci naka noonu Adama daal dinay làq lépp loo xamante ni awa def na ko ngir suturaal ko ci noonu awa daal di laaj Adama bi ñu duggee seen biir nekk ñoom ñaar mu ni ko waaw ana lan moo tax waxu benn yoon sama yaay li nga xamante ni moom moo ma dal démb ci guddi awa daan ne ko xanaa xamoon ni am na mag mu baax mu ni doomu aadama doomu aadama buy wax say ayib di wax say njuumte di wax say ndëngte xanaa xamoon ni kooku dalaa bëgg weex tey bu yàlla suñu borom bi subhaanahu wa taala di wone say ayib dalaa bëgg a defar bëgg laa baal say bàkkaar loolu rek moom moo tax ñi ma moon a wax benn yoon sama yaay ji say ayib xëy na yàgg-yàgg dina ko xam naka noonu aadama daal di génnaat dem delluwaat ci yaayam ngir yëgal ko nouvelle bi nga xamante ni am na ko bi mu xëy daan ne ko yaay man daal tey bi nga xamante ni doon naa liggéey ba wàcc di compter sama xaalis dafa am benn sàcc boo xamante dafa këfoon sama xaalis sàcc ko. may daw di dàq ji sàcc bopp bi ma koy dàq ji nag ci la am benn waay boo xamante ni gis na ma daal di may topp waaye ji nekk tey yaay topp na ma topp ba ci kër gi. bi ma ko laajee lan la li moo xamal yëgal ma ko mooy moom dafa yor. équipe boo xamante ni équipe la buy daw moom waa ji sax ci jëmm boppam xamal na ma ni ma ay éliminatoire la ñuy def compétition képp ku jël rek dañ lay jël en charge yaay booy waa ji nee na ma su ma ko gañee dina la faj yaay booy waa ji nee na ma su ma ko gañee itam dinaa am salaire ndax may représenté li nga xamante ni moo di suñum réew ci wàllum daw yaay ji ne ko waaw waaw loolu moom neex na di alhamdulilah sant yàlla bu baax samay ñaan xëy na day waaj mat ndax heure bu ma jullee rek yow sama doom aadama maa ngi ñaan yàlla mu dimbali la ba say rêve réalisé wu ndax man aadama xam naa ni say rêve du leen lu dul loo faj man mii di sa yaay waaye itam jël ma en charge bu baax a baax a baax ba tax na daa mel ni rêve yaa ngay waaj a réalisé wu su fekkee ñaanu waajur ci doom dina dal doomam su fekkee xol bu sedd ci waajur dina dal doomam ci lépp lum ko mas a defal ci lu baax Adama bi sa baay génnee àdduna ak léegi añ reer ndekki lépp loo xamante ni rek loo xamante ni moom laa yittewoo moo xam xaalis moo xam ak dund ak lu mu mën di doon aadama ci sa loxo yi lay jaax te it cagatu woo ko bonoo ko sàcc woo ko fene woo ko defoo koy njaaloo woo ko defoo lenn lu dul jaarale ko ci yoon di liggéey aadama liggéey góor rek ngay liggéey ngir di ma dundal tax na kon tey jii maay taxaw di la ñaanal man sa yaay bu fekkente ni ñaanu waajur ci doom am na su fekkente ni xolu waajur ci doom bu seddee ci moom ba ni yi bu ko ñaanalee mu dal ko Adama maa ngi lay ñaanal soo demee nga raw say maas. Adama daal di kontaan lool bég ci li ko yaayam wax delluwaat ci awa daal di ko koy expliquer comme ni mu ko expliquer yaayam awa daal di ciy kontaan lool dandi ko Adama yow di mën la leer ni lépp loo bëgg ci lu baax soo góorgóorloo tuuti am ko ndax sama yaay ñaanal na la te gërëm na la man mii kay la sama yaay ñaanalul benn yoon gërëmuma benn yoon ndax sama jikko ju bon ji nga xamante ni moom laa nekkee di def lu bon di wax lu bon sax ci dëkk ci def ko kër waaye su muy jóg jóg jóg di dem di wax sama yaay mu baal ma àq ci mbuule seen loo xamante ni lu ma mas a def la ci lu bon te it di ko nëbb Adama ni ko awa àdduna amul solo def lu baax rek am solo te nit ki li nga ji rek ngay góob lu waay rendi ci say loxo lay naaj soo góor góorgóorloo sonn ngir bëgg a baax di def la tout ngir am lu baax jàppal ni yaa ngi rendi mboole seen lu baax bu yàgg-yàgg day naaj ci say loxo waaye boo dëkkee ci lu bon di def lu bon di wax lu bon sax ci jàppal yaa ngi rend mboole lu bon te yàgg-yàgg day naaj ci say loxo kon nag awa jéemal a soppi jéemal a góorgóorlu jéema la baax jéema la baax tabe te xam ni kenn yorul mbiru jàmbur lépp lu yootu ci nit di daw di ko wuti ci moom xamal ni yàlla suñ borom bi subhaanahu wa taala mi dara tawul moo ko fa def soo góorgóorlu la rek sabablu yow itam di nga am lu nit ñi di daw di wut ci yow te it yow xanaa xamoo ni jigéen nga te jigéen la li gën a foor ci moom moo di ay cëram di boppam soo ko joxee dootoo amati valeur ci mboole seen góor boo xamante ni jàkkaarlaa nga moom mas ko koo jox te du sa borom keex jigéen jigéen jamaa la ci bu ko gëmee bu sàgganee boppam nag mën naa dem bëgg na a yées përëm voilà mbokki histoire extraordinaire ñu leen di wax à suivre di leen jox di daje ci dixième partie bi waaw dixième partie histoire extraordinaire Adama ak Awa Adama fan lay mujjee ci compétition bi Awa fan lay mujjee ci lu bon li nga xam ni mi ngi ko doon def yaay yi fan lay mujjee waaye fàttewuñ benn yoon seen rakku papa boobu yi moom itam fan lay mujjee kon nag mbokk yi ngir ñu xam li nga xamante ni moom moo ci topp lépp duñ def leen lu dul daal di abonné ci Thiès Info boo abonné ba noppi bësal cloche de notification bi voilà mbokk yi ma leen di jox di daje bu baax a baax a baax ci partie 10 histoire extraordinaire Adama et Ève jaakin cëf histoire extraordinaire di am deux fois ci semaine bi tous les lundis et tous les jeudis